Balla Gaye dafa noonu day ñëw tey duma paru boo ñaar loolu la waxoon waxul loolu boo ñaane ko tey bu arbi suuf la tey moo war leen ni du ci dëgg waxul loolu parce que Balla daa mépp boo ñaar remise lu ngeen gis yéen li ngeen may laaj yéen a ma ko gën a xam mais père boo ñaar sa dugg ci diggante tafaati nag Bombardier foofu xam nga ki nga xam ne day foraatu ak ki toll ci war a mën a liggéey xaalis dañu benn Bombardier ku mu neex man ngaa bëri moom ndax neexul a bëreel ndax taay ba mais mi ngi jeexal làmbam la ci des bëreetul tafaatin desal tuuti ci làmb mais mooy seet moom diggante ma booñaa la ma ko ñoom ñëpp kenn ku ci ne da nga ne daan nga booñaa bu leen seen bopp Tapha Tine dafay daan na Boy Niang par avertissement Lac de Guiers lu mu wax kon du ñu bëreeti nañ ko fi bàyyi dem wuti ñeneen ñoom lañ wuti leen. père yaay lamb non non ñoom ñoo ne daan nañ Tapha daan nañ Boy Niang Tapha lu mu wax dafa daan Boy Niang avertissement Lac de Guiers lu mu wax kon léegi nañ wuti leen dafa bàyyi Boy Niang Boy Niang toog xaar ku ko neex mu bëre moom Boy Niang tey dafa dugal ci làmb ji. une la commencé dugal Ndege Ndiaye dugg ba quatre heures ku mën na ko def oh Fadel dama lamb stade bi tey nu mel ah jeex na ku ne daan nga boo ñaa bàyyi ko fi bu ko laal. jaaxal mooy chaque combat boo ñaa nga dagg bi avion dix. man du ma dagg billet boo ñaa mooy dagg billet. sa diggante ak boo boobu am ba. ma jur ko. ngir te ko bayal xuja bayaan ca kees dëggal ki ngeen de ma jël cent kilos ceeb jox ko ni ko maa la ko nootale ànd ak moom ba léegi ngeen may laaj ci boña lu ngeen may laaj ci boña man dafa amu amu jotu wax boña boña xam na ma xam na li mu sàtt ci man. bi nga ñëwee loo ko dolli ci combat taal ko essence bu taxaw ma ko set ba rey almet sànni ca. loolu jàmm du fa xew. loolu jàmm du fa xew. déggoo de. loolu def. banyak Niang xam na li xew. dernier conseil yi nga jox Boy lan la. mooy kii ngay bëre ni karkaas la. ah bon ah si. dana bu waxul ak Boy day tas lamb wala wax si biir. waaw bu ma waxul ak Boy Niang damay ji dégul xool ma ni ma dugal. wala su ma dugal ji. nga di lan. nga conseil ngay bëre. la bi xam lan. mag la mag bi xam lan. bi na mag la bu dem day dem diit six heures du matin trois heures day dem day dem saal quatre heures day dem dîner Balla Gaye teraanga ja bëri na jaralatu ko ko na ñor wax dëgg Balla Gaye ay oto yu luxe dawal oto yi mu dawal ministre du duñ ko dawal ñu wax dëgg làmb jaralatu ko loolu Bombardier mi làmb jaralatu ko loolu Yékini ngi nii adataay seen da ko gisati ci làmb li mu am na ci làmb la ko am da ko gisati gisati ngeen ko jeex na bu leen nax seen bopp waaye yéen a xam ngeen li xew kat ku ci dawal ku ci dawal BM bu climatisé huit